daa leen ko wax di yàgg naa leen ko wax xam ne nga am taw tawfeex rek lañ ko am ñoom ñu ngi la am xaas la a wér a wér yoo xam ne waaye nag xaas ngeen am waxuma tawfeex an laa yuxaalituhu suxutun wa kulliyati tax mi an ak daari yow suñ boroom radiitu gërëm loo naa xan ko walis la irtidaa an ngërëm loo xam ne laa yu xaalituhoo déet muy jaxasantoog suxtun lenn luy sànji wa tax mi te danga xaar kulliyati sama lépp xan ak daari walis lépp luy xeeti nax-nax yàlla gërëm naa la gërëm loo xam ne ñàkk gërëm dootut ci toppati ñàkk bég dootu ci toppati bëgg naa ci yow bég goo xam ne ñàkk bég dootu ci toppati taxaar nga sama lépp lépp lu bokk ci man lépp luy gàllankoor nit doon ay nëx-nëx tax nit ki ay jafe-jafe di ko dikkal ci adduna yu bari di ko gàllankoor nee na loolu yëpp aar nga sama lépp ba nga xam ne loolu fa tabaarakallaahu du ci topp mukk raditu gërëm loo naa an ko walisari irtida an gërëm loo xam ne laa yuxaalituhu déet muy jaxasantoog suxtun lenn luy sànji maanaam bég naa ci bég goo xam ne daal maanaam dootuma ñàkk bég mukk wala tax mi te da nga xaar ku liiti sama lépp xan ak daar wala lépp luy xëj na nax lépp luy gàllankoor nit ki ci na rek man mucc naa ci ak lépp lu bokk ci man salaatun julli wa taslimun ak sëlmal minallaahi gu tukkee ko ci yàlla sarmadan ba faw alal muntaxaa yàlla na ko yàlla sotti ci kaw ki nga xam mooy muntaxaa mooy ku ñu tànn ki xayril bariyaate mooy ki ngën ci bindee fi yàlla yi ahmada turo mooy ahmad mu ne jullik yàlla ak sëlmal gu bàyyi ko ci yàlla waaye goo xam ne day sax ba foofu yàlla ko yàlla sotti ci kaw muntaxaa mii nga xam ne mooy ku ñu tànn ki mooy ku set wicc ki waaye mooy ci bindee fi yàlla waaye turam mooy ahmad mooy sant ki benn yoon la ñëw ci alquran falaahun texe wari diwaanun yàlla gu dul dog mu ne ala sax bi yàlla na ko sotti moom yàlla ci kaw saxaaba yonent bi maxan mboolem seen bi fa di liman ci darajaay ngëneelu ka nga xam ne af naa jeexal na xanaa i sama coono wa axmada te mu ko mooy mu fay ko ba mu fay kamas nee na maa ngi sàkku ci yàlla mu bàyyi ko ci yàlla ak texe ak ngërëmam bu du dogoti mukk mu sotti ko ci kaw saxaaba yi nga xam ne ñoom ñëpp waaye na ko def ci daraja yonente bi nga xam ne moo jeexal samay coono ba noppi fay ko nga xam ne li nga amatuma benn coono yonente bi salaay salaam yàlla fay na sama fay na sama coono waaye lépp mi ngi ko def ci daraja yonente bi salaay salaam moo tax bi yàlla nekk ci ay saxaaba maan mboolem seen bi fadil la si ci ngëneelu ka nga xam ne ci mbaaxu ka nga xam ne ci darajaay mbaaxu ka nga xam ne af naa jeexal na xam naa i samay coono waax mu daata mu géemal ko raditu gërëm loo naa anil baaqi walis yàlla mi nga xam ne mooy ki sax ba foofu te dafa bay ko àll si yàlla mooy ki nga xam ne xaada womatal na lii ñeel ma ba baqaa ak des gërëm naa yàlla mi nga xam ne mooy ki sax ba foofu fi ñëpp bàyyi ko kullu man alayha faanin wa yabqa wa ca def ko soo jilaalul nga xam ne nim fi desee te biir desam nga ci la ma dugal man sëñ Tuubaa feeg yàlla fi rek maa fi moo tax mu ne gërëm naa yàlla moom mi nga xam ne mooy ki fee sax ba faw te du fi bay ko mooy ki nga ci biir gërëm loo bi ci sama mbind mi af dalal xalq ki ngeen ci mbindee fi yàlla ahmada turo mooy ahmad nee na yàlla jamono ji nekk sama mbind mi da ciy bégloo yonent bi di ko ci kontaanloo yonent bi nga xam ne mooy ki ngeen ci mbindee fi yàlla yëpp turo mooy ahmad safa sellal na moom yàlla li ñel ma baqa xaada womatal na lii ñal ma baqa ak des wuddan ak cofeel wa nusurtan ak ndimbal waxel man ak xam-xam wa aadaaban bu ànd kook teggin ya waaye waaye moom yàlla ma waqat badadaa feeñalal na lii ñal ma alxayru yiw yépp moom borom bi tabaaraka taala yàlla selal na sama lépp yàlla mooma womatal ak sax ma di fi des comme nu mu fee bàyyi ko mooma womatal ak cofeel ci moom womatal ma ndimbal lu bàyyi ko ci moom womatal ma xam-xam bu bay ko ci moom wu matal ma teggin bu bàyyi ko ci moom ba yàgg sax mu ne yàlla feeñalal na ma yiwam yépp safa sellal na lii ñel ma moom yàlla xaada womatal na lii ñel ma baqaa ak sax ma di fi sax nam fay saxe wut daan womatal ma ba tey li nga xam ne mooy ak cofeel ca moom wanu sotoon ak ndimbal waxeel man ak xam-xam bu bari wa aadaaban ko ànd koog teggeen ya waxat ba daa feeñalal na lii ñel ma alxayru yiw yiw yëpp suñu borom bi tabaaraka wa taala feeñalal na ma ko cooy suñ tubaab samay ëtt bi kasril faa i ci kas ci dafa bañ nga koy jàngee fanaa ii kon day tekki leneen day tekki fanaa guy tekki jeex na moo tax mu ne leen bi kasari bi kasaril fa i su ko defee faa gi koy kasara da koy mas ci suuf moo tax mu ne finaa ii soo ko kasaraa ci faa gi faa gi boo ko kasaraa day tekki ëtt kon mu jubli ci jumaa yi tubaa ak la ko wër lépp lépp lépp mën naa doon ak ëttam wala dëkk yum sanc yépp mën naa doon ab ëttam loolu yépp waaye nag ëtt moom bu ñu ko waxee rek mooy barab bi ngay jaamoo yàlla la ko wër lépp loolu la ci jublu moo tax mu ne fi naa i samay ëtt bi kasaril faa yi bañ koo jàngee faa nag kasaral faa gi saafin sama ëtt aji sell la mun na waroon lu ñu leeral la waxandi nekk na fi man kitaabullahi téereb yàlla bi woo ubbi daa tasaxalee tasaxalees na ma albisru li nga xam ne mooy mbégte nee na sama ëtt lu sell la sama ëtt kër yi dañoo dëll sama ëtt lu sell la lu ñu leeral la te nekk na fii ci man sama ëtt téereb yàlla bi tantee ne sunu borom jamono ju nekk daf may saxlaat ak mbégte moo tax man waxeen di nekk ne fi man kitaabullahi téereb yàlla bi wa ubida te saxale te saxalees na ma dàkk albisru ay mbégte rahimun kooku def lool mooy aji yërëme ji wa rahmaanun mooy borom yërmande ju yaatu ji rahimun mooy aji yërëm ku ko soob ci àlaxira wa rahmaanun mooy ki xéwala kon bépp mi népp ci àdduna wa ajaa ba ni wuyul na ma sama ñaan baqin yàlla mi nga xam mooy ki fees sax ba faw ta du fi bay ko mukk te yàlla moom wa baaxa dana sama mbind man ña nga xam ne te abada saxal nañu nangu nañu riddahum seen ngërëm nee na yàlla mi nga xam ne mooy kii xewalaa kon bépp mi ndépp ci àdduna tey ajëram ku soob ci àlaxira nee na nangul na ma sama ñaan moom mi nga xam ne mooy ku sax ba footu dafa bekkoon mboolem ñi xam ne yàlla nangul na leen ne maanaam gërëm na leen te ñu àndutoon ak yonent bi ak ñi leen jiitu ñëpp nee na dañuy puukaroo sama mbind moo tax ma ne moom yàlla moo boo baaxaa dana puukaroo loo biqati sama mbind man ña nga xam ne te abada saxal saxal maanaam nangul na leen rek la ci jublu saxalal na leen riddaahum seen ngërëm ñi nga xam ne yàlla daal moo wax ne ñii làq nañ ñi sama bind safat sell na lii ñal ma yàlla moo sellal safat sellal na moom yàlla lii ñal ma soxóor yi samay weer yi bil masaaya ànd kook may wax wa axwaam ak sama at yépp nee na yàlla may ma jox yépp ci ay masaaya maanaam ak weer yeeg at yépp sell sellalal na ma ko moom yàlla moo tax mu ne safar sellalal na lii ñeel ma suxóor samay weer bil masaya ànd koog may ya wa axwaami ak samay at yëpp at yi may dund ak weer yi yëpp ak may yi ma jox yëpp sellal na ma ko wa di dana gindee ilal jannaati ba rek may tàbbi aljana billahi ci kàttanu yàlla aqwaami ñi nga xam ne mooy ñi gën a jub mooy ñi nga xam ne mooy ñi gën a jub maa ngi leen tegee ci yoon yoonu siraatul mustaqim ci kàttanu yàlla mooy ñi nga xam ne yàlla ma leen tànnal te nee na dafa fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam tànn nit ñi jàpp ne day tànn boppam mu xool lu yonent bi sallallahu sam tànn mu muy xeet wi gën ci xeet yi mu tànnal ci boppam kon ñooñ sëñ tubaa ñoo gën ñu duñ ñooñ moo tax ma ne xebaadaatu naa faqat xebaadaatu xeeri naa sunu jaamu yàlla ñun sëñ tubaa ak képp ko aj ci ñun moo gën a kawe jaamu yàlla ku dul ñun moo tax mu ne man sëñ tubaa wa uhdi danaa gindee ilal janaati ba rek may tabbi aljana billahi ci katnuk yàlla ak qawmi ña gën a jub ña nga xam ne dañ maa topp mooy ñi gën a jub ñun maa ngi leen di gindee ci katnuk yàlla ci mbaaxuk yàlla ba rek may tabbi aljana faraxtu tàqalikuk naag minal akdaar yi lépp luy xëyti nax-nax wal faqari ak ñàkk wal xanaa ak coona wa jaxtu jëmale naa aqlaami samay xalima yépp lillaahi jëmee ko ci yàlla bil Mustafa ci darajaa ku ñu tànn ka nee na teqali koog nag lépp luy gàllankoor nit ki ci na ci ay xeeti nax nag ak i jafe-jafe teqali koog nag ñàkk teqali ko nag coona sama xalima yépp jëmale naa ko di bàkk yàlla di ko tagg di ko kañ lépp ci darajaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaakaar naa inqiyaadal hisbi wamatu kuréel ba lillaahi ñeel yàlla wax doo kott bi xat ki ci sama mbind mi àlla si mbind mii nga xam ne yaxyaa danaa dundalee bii ci mbind mi xeeral islaam yi nga xam ne ñëpp dañoo bëgg a dem ñëpp yàlla mi nga xam ne mooy kenn képp yaakaar naa maanaam ci sama mii ma di leen ci womatee kon mbindam sëñ tubaa day wommat ku bëgg ci yàlla ak kuréel bi foo a bokk rek boo taxoo mbindam sëñ tubaa dala yóbbu ci yàlla moo tax ne yaakaar naa ci wommatee kuréel bi nga xam ne dañoo jëm ci yàlla yàlla mi nga xam ne kenn képp la ci sama mbind mii nga xam ne ci lay dundalee ngën ci lislaam rajawtu yaakaar naa inqiyaadal hisbi womat ab kuréel lilaahi jëmee leen ci yàlla mi nga xam ne waxdoo kott maa ngi leen di womatee bi xatti ci sama mbind mi ala si mbind mi nga xam ne yaxya danaa dundalee ba faw bi ci mbind mi xeeru islaam yi ngeen ci lislaam kon mbindam sëñ Tuubaa day yóbbu nit ci yàlla allahuma yow suñu borom sali yàlla nga julli wa sallim tey sëlmal wa baarik tey dollik barke alal Mustafa ci kaw ku ñu tànn ka al miftaahi kay caabib yàlla allahuma yow suñu borom sali yàlla nga julli wa sallim tey sëlmal wa baarik tey dollik barke alal Moustapha ca kaw ñu tànn al miftaahi kay caabib yàlla arahmati kay yërmande sayidna mooy sunu sang bi te sunu kilifa Muhammad Muhammad wa ali salaatu bi na ñëw ba ci waa kanam wa son bi ak saabaam ya loo xam ne ixtata tànnal nga ma ko xayaatoo ci ak dundam bihaa ci saw bug salaatu goog amin nga nangu ñaan xam ne yaay borom bindeef bi si foona wala si lépp loo xam dañ ñu ko melal ci ay doom yàlla nekk la ñeel yàlla rabbil alamin moom mi nga xam ne mooy borom bindi fi ci kaw yonent bi caabi mooy koy tijjee ba ñëpp mën ca jot kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu ne mooy sa caabi ji waaye mooy sa yërmande ji ndax yàlla da koy mu doon yërmande ñeel mboolem bindéef wa maa arsalnaaka ilaa rahmatan alamin kooku mooy sunu sang bi turam mooy Muhammad mooy sunu kilifa salaatu gi ne ñëw ba ci waa këram ak saabaam yépp waaye yàlla na nga dundalee yii bayit ci lépp loo xam ne tànnal nga ma ko ci ak dundam ci sababu salaatu googu yàlla nga nangu ñaan yow yàlla mi nga xam ne yaay borom bindéef moo tax man lépp loo xam ne xayaat ah, ixtata tànnal nga ma ko xayaatoo ci dundam moom yonent bi bi haa ci sababu lépp lépp lépp ko dundalee ci bayit lépp loo xam ne tànnal nga ma ko ci dundam moom yonent bi ci saw bu salaatu googu lépp ma di ko pratiqué yàlla nga nangu ñaan yow mi nga xam ne yaay borom bindi fi daal ne tudd na ma selek buur bi nga xam ne mooy borom tedd nga bokki kon mën nañu yem foofu insha allahu bañuy del si bu sobee suñu borom